la yenn ci mool yi doon napp ca géej ga di dund jamono ji li ñu xamle mooy benn bato moo tuur ab produit toxique ca géej ga loolee nag jural leen ay loraange ci seen wérgu yaram comme ni ngeen koy gisee ci vidéo bi. donc seen kanam ah. euh, euh, nga rek euh, àdduna moom dafa ma jël seen kanam yi et puis ñoom ni ñu ko expliqué dafa egg ba nga xam ne si seen partie intime ba ci partie intime bi donc mais du mën a wax rek mooy euh, IPC bu Thiaroye sur Mer vraiment mu ngi taxaw gendarmerie aussi ñu ngi ñëw pour xool situation bi jéem a euh, situation yi remonter information bi au niveau gars xool réellement lan la quoi donc ñu ngi nii daal di poste de santé bu Thiaroye sur waaw kii tam aussi kaneen la donc ñun euh, dañuy jël ni image duñu jël benn kanam gis ngeen kii aussi loxo bi ne la donc ñoom ñëpp ay mool la ay pêcheur la ci géej gi la leen di dalee donc bi ñu teeree gi nga seen yaram dafay tàng ñëpp ñu ngi fi nag euh, médecins yi ñëpp yëpp dafa fees del ak ay nit waaw euh, ñu ngi info euh, information yi nañu koy jàllale pour ñëpp jot ko daal wax dëgg yàlla métti na mais sa ay maçon ñoom ñëpp bu ñu leen waxoon li li mu demee ñu ngi nii tëdd tëdd tëdd gis ngeen laal yi foo leen gis am ko tëdd xale bu ndaw mi sa daf ko daal donc bëgguma jël kanam yi hmm? waaye ñoom ñëpp la daal ñu ngi noonu boo gars yi mi ngi noonu ah ñu ngi nii ci buus waaw bon gars yi affaire bi noonu bon jógee maladie bi bon ay picc la lay def ah. donc damay bañ jël kanamam lépp quoi donc picc lay def mool yëpp la daal bari nañu produit bi nag il pare yi ñoom ñu si bari nee nañ benn bato la bu nekk ci gi di am na muy déverse donc mool la daal ni ay picc lay def ci kanam yi gis ngeen ak seen tuñ yeeg yëpp bon mënuñu bëgguma jël kanam gi moo tax ñu def ko nii quoi ñu ngi ñu ngi caare sur muy lu metti ba jéggi dayoo ci mool yi nga xam ni dañoo bàyyeekoo ci ay gox yu wute fu ci mel ni Joal Kayaar Mbuur ak Caaroy jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf saar nag ñëw na doxantu fa daal di leen masawu jamono ji naka laaj yi nga xamante ni moo samp te ñuy wéy di seet tontu bi moo di ana yan produit wala ana ban produit lañ fa tuur waaye tamit ndax jamono ji jën yañ fay napp wóor na ngir ñu koy jëfandikoo